Je suis un Papa Ndiaye donc euh, man en tant que souterrain donc may ñaan euh, gars yi am Sénégal lañ koy nous sommes tous ay sénégalais donc euh, na am Ce waaw. may député nous ñu leen di fal défendre suñu suñu surtout si nous sommes fii ñun ñu nekk ñu ñu fal fii nañ ñu taxaw askan bi bu baax a baax. Euh, maa ngi tudd mënatu Diallo. mbir bi jàmm rek laay woote parce que jàmm ci la lépp xëj waaw man jàmm laay woote sama côté. Euh, lu ñuy xaar ci député yi maanaam ñu taxaw ci mbébétu euh, xale yi ak jigéen yi ak coono coono bu am daal ci population yi loolu la loolu lañ war a ci loolu lañ war a taxaw. loolu moom la ñuy séen ci député yi incha monsieur Yankoba Diata, euh, yaakaar naa bi législature bu ñuy dem ni nag dina doon législature boo xamante bu rupture lay doon maanaam dañuy soxla tey ay député yoo xamante ne du ñu dem assemblée nationale pour seen bopp nous avons dem assemblée nationale pour seen parti politique yi mais dañuy dem assemblée nationale pour askan bu di fal donc euh, de ce point de vue lu ñuy xaar ci rupture totale.